ñun fa ñuy gisee sëriñ tubaa la ñuy nekk fu ñu gisoo sëriñ tubaa amuñu ci soxla xaadim boose nga ne nag yi nag yi mbalit la yaa yàgga lekk nag yi mbalit yi yaa yàgga lekk nag yi sën yi yow màggal musoo sasu joxe musoo jëfal sëriñ tubaa mi daal di noonu mi daal di ñaataat nga génn dëkk bi tey ngeen taxaw ci gàmb gii ngeen mel ne ne ci conférence de presse yor seen quatre micro yi les quatre vies yi naan yi mbalit yéen a ñu rusloo yéen yéen a yàgg lekk nagi mbalit yi barke Sëriñ Tuubaa yéen bu du woon sax na ay da ngeen ko tusu di ndax nagi mbalit yi da ko yàgg di jox ngeen di ko yeew seen buntu kër yi di di ko rendi di sant ñun sant nañ Sëriñ Béthio de barke Sëriñ Saaliw taylewuñu ñun Sëriñ Béthio ci loxo yi wóor la ñu teg pour nu liggéeyal sëriñ tubaa muy jëwriñ di universel xëccoowul xilaafa doonu tub sëriñ taalibele na ñépp doon universel ngir liggéey bi di dox da ko yàgg a def dëgg la sëñ bi li nga wax ak ay dëgg bi fi sëñ bii ne amul benn njaboot bu ñamee taxaw jàmmarloog soxnaam yi ah yoonu murit kan moo fi taxaw di di di di di di di di di di di wax ci sa soxnay baay loolu lu teguwul yoon yéen mas ngeen koo gis yoonu murit kan moo ko fi mas a def ñoom te soxna si du wax ak ñoom mook ndax mook seeni waajur la seen yaay la mu leen di neex mu leen di naqari ndax seen yaay la daan nattonteel ay mbatt ci biir kër gi jur fi njabootam yi tedd yii ñu amug yar kenn déggu leen ci lenn ak ñoo mën a na taxaw ñu am fulla waaye ñun bu ñu neexee jébbalu ci njabootu soxnaay de sax ñun ah, waaw <laughs> doom doom la di te benn doom gënul doom madinatu ba mettee kenn gisu leen yéen ñëpp a daw dogali taab bi taalibe yi dugg ci kaso bi ngir liñ tee sëñ bi ana doom ju doon fekk sëñ ba ci biir kaso bi amul benn doom dañu ñëpp a daw bàyyi noog sëriñ bi soxna yi taxaw taxawaayu góor yàlla di yëg di wàcc màggal gu njëkk tax soxna yee ko réussir gintee sañ beccu gàmm ga noonu tey ngeen taxaw fi yor seen micro yi les 4V yi di wax kenn du leen déglu ba wax jotee waxoo leen da ngeen a daw ñii taxaw gaynde yii taxaw taalibe yii jaam jaamaat sëriñ becco yi nga xam ne bëgguñu ku du sëriñ saar ñii dem nañ xel kom ñii dem nañ njàpp ndal ñii korite umul xuraa ñii ci tool yi soxna yi nelaw nelawunu akkiwunu lépp la ñuy def ci liggéey sëriñ Tuubaa sëñ bi gërëm leen gërëmati gërëmati gërëmati gërëmati ngeen foog ni ngërëm loolu day naax saay ñun sëriñ saali wunu digal ñu jébbalu ci sëriñ Béthio sëñ Béthio moo ñu digaloon ñu yem ci moom jébbaluñu ci keneen topp du force du force de sëñ bi sa point yi nga wax moo am solo barke sëriñ Touba sëriñ Saaliw nag day sëriñ Touba ndax sëriñ tubaa bind li xaadatil hujoodu wal masaalihu bi tey wa jëbs bi tey wa jës bu wa him nii saaliw kookee day sëriñ Touba kookee day ku tedd kookee dañ koo gëm sëriñ Saaliw dañ koo yaakaar wóolu ko sopp ko àdduna ak alaaxira mu digal nu na dee leen jébbalu ci sëriñ Béthio te di koy tuddee doom képp ku ko def di nga ma noppal fii ak ëllëg gënu jëm tey sëñ bi taxaw dem ngeen ne sëñ bi dem na lu leen neex def ndax ngeen seen bopp de ndax duñ leen may toog ñun taalibe yi yaru rek wormaal seen soxna yi waajur yii ndax seen yaay yaa ngi noonu toog ci seen wet te kenn ñemew cee jàll sa waajur wu jigéen ngeen jàpp seen doomi bàyyi seen waajur yi di leen ŋàññ yéen doo leen rus tax te ngeen ne da ngeen a war a yoon njabootu sëñ Béthio gi te ngeen ne yéen a war a toog seen toogaayu baay nit ñi di leen dooleel ñi daw dem ci sëñ Saal Gueule Tapée ñëpp danoo dawoon bàyyi sëñ Béthio ku mel ne si la muñal man foofa laa bàyyee sëñ Saal te bu doon loolu duma la topp ndax si la muñal lu mu waxut sëñ Béthio amul. Omaro yow mosoo jëfal sëñ Bamba ginaar tey sëñ Béthio dem ngay topp ci soxnaam yi naan xamuma leen yow bul fàtte ne idda loo am idda Samb Limaamu Gay la de ñooñ ñoo la dooleel de idda daana na ziyaar nga topp ci ginnaawam ak sa ñetti abduy ruusi mel na taalibi dem Bordeaux fekk fa Limaamu Gay tey nga taxaw di wax sa wax jure jii tekki woo dara ci yoonu sëñ Béthio yi yow yow yow amoroo musuma laa gis nga ziyaar sëñ Béthio musumaa gis nga ne millions yi amoroo ko findi xanaa toog di wayaan sa mbokkum taalibe yi loolu de xam naa ko ci yow moom tey sëriñ bi wane ginnaaw ngeen am audace téye njabootam gu tedd gii nga xam ban dalee doon ay taalibe sëriñ Tuubaa di liggéey sëriñ tubaa kenn xamul kañ la ngeen taxaw fi di wax dërëm de kenn du leen ko jox dem leen ngeen liggéey jëfal sëriñ Tuubaa ñaq jariñu sëñ Béthio ñu ko daan jàngal nee na amul doom amul taali bi jëf jël la sëriñ Touba liggéey jox ko moom loolu la gëm sëñ Béthio lool la ñu jàngal ci loolu lañu yar kii nag day jëwriñ di universel dub sëriñ dub seex iniversel la di jëwriñ ci yoon wi samp ay yor ay daara sëriñ bi dénk ko ko ne ko yow laa wóolu sama ginnaaw ak sama kanam ñun ay ndénkaan lanu saal gol tàppe su bëggee taalibi baayam yi ànd doon benn lam waroon a def daa waroon a uuf ñépp dem fekki soxna yi fa ñu toog waxtaan ak ñoom dajale njabootuk baayam gépp téye waaye toog ci télé naan tàllal naa ñépp loxo lay fekk si sa ndey yi ñoo lay fekk si sa benn waajur du la fekk si ñii say yaay lañu sa ñoo fekk sa yaay fa mu toog nga naan ko tàllal naa la loxo lu bon bon di nga fekk sa yaay fa mu toog nga nuyu ko tey jii ñee say yaay lañu ndax sax say soxnay baay lañu loo tey dem seen biir kër yi nga toog ci télé bi di bëlëf bëlëfee nit ñi naan tàllal naa ñëpp loxo kenn fekk siw la ñee say waajur lañu duñ la fekk ji demal fekk ji sa waajur yi say soxnay baay lañu nga wormaal leen ñu yor sa rakk yee nga waroon leen a yor yoroo leen di tànn sax sëriñ buy tànn sax ku fi toogal sa baay yoonu murit képp ku fi toogal sa kër baay danga uuf ñëpp botti woo kenn jox say soxnay bàyyi war ma ci yoonu murit ba mu ba yoonu murit sosoo ba tey damay dégg ñu koy wax sëñ bi li nga posé moo am solo ñun ay taalibe képp lan dañoo bëgg sëñ tubaa gëm ko waaye fu nuy toog gisuñu fa sëñ tubaa dañ fa toog am nañ fulla sëñ Béthio ñu ko jàngal moo ñu ci yar nampatal ñu ci fu sëriñ tubaa newul bu leen fa ne ñun nag li ñu xam ci liggéey sëriñ tubaa doo xaste doo wax lu ñaaw doo def lu lu lu luñ lay xeeboo doo wax luñ lay ñeeboo ku bëgg sëñ tubaa day feeñ ci say cër feeñ ci sa kàllaama feeñ ci sa làmmiñ ñun dañoo jàppoon ne bu sa waajuru demee da ngay uuf ñëpp yow sëñ Saal Ngoye Tapé yow ñetti fanu sarax sa nga ngeen wane seen bopp Fatim Corol taxaw di wax jàkkaarloog sa soxnay baay mu lenn mook sa ndeyee doon wujje nga taxaw te ñemewoo koo def ñun xamuñu la woon sax yow 99 lañ ànd ak sëñ Béthio ba jur ci ay doom ba doom yooyu màgg ba sëñ Béthio maye leen te xamuñu la yow sa papa tax dem nga taxaw ci digg ëttam di di riposté wu di wax ay dajaalo du toog ci photo yi mooy toog ci photo yi ndax foto yi ne ci këram yépp sëñ Béthio ko fa def nga mel ne ya yande code seen yow faatim Coro Cuun sëñ bi li nga wax noonu la demee de ñii ñett ñii <laughs> ñii ku leen ku leen ku leen ku leen bàyyi jigéen ju amati compte ci banque di nga ko jël jox Serigne tubaa ñetti soxna yii barki Serigne Touba ku leen bàyyi jigéen ju toogati jël sa milliard denc ko ci banque di ko jël jox Serigne Touba Serigne Touba nag daa ñemewul bor loo ko defal mu delloo la ko te tànki tayam yi day gàccaal yu démb ya Serigne tubaa ba muy tukki. tuk ñëpp ñëpp la tukkil ba mu ñëwee ñépp la siggil gannaaw moom moomee moo daj lu ne ci kaw suuf dem fu ne wër fu ne ba mu ñëwee dana jéggal naa ñépp te ñun ay jaam képp lan dañ koo gëm wóolu ko yaakaar ko sunu koppar yii nag du koppar yi lëbo du koppar yoo xam ne nii dañ koo kii déedéet ko yi ay doomu aadamaa ko ñaq ñii dañuy jaay géej ñii dañuy jaay ginaar ñii dañoo ne ci bureau yi ñii yor seeni salaire di ko tayle ci ci banque yi di ko lépp di jox Sëriñ tubaa ñii di jaay ndox ñii di jaay mburu ñii di jaay beñe di ko jëf ba mat cinq cent mille ñu bàyyi ko beewaa ku dem beewaa xam li ñuy wax lebu ñu bànk abu ñu banque gisuñu la ba xamuñu fu la ba nekk xaalis sëriñ Touba yi ñoo koy dajaleel suñu bopp benn jëmm ju ne 500000 ngay sasu nag ngir sëriñ Touba sëñ bi sa li nga laaj moo tax sax ñi lay leeralal màggal jot ñu ne naa buñ ko bàyyee mu dem lii mu def première màggal peg ngeen seen seen yi ànd ko waa Touba naan da doon tuddi doom da doon mayee sëy kii mosul fekke fu ñuy tuddee doom ci kuréel gi musul fekke fu ñuy mayee sëy xanaa bu sëñ becco dee mayee mu toog man mii mooma yóbbu Europe may liggéeyal sëriñ tubaa ngeen taxaw jël tuuma gu réy gi ànd ak mbokk taalibe yi ci biir Touba dangeen a foog ne xamuñu lu xew seen pexe seen pexe yi du jaal de sëriñ beccoo na woon ku ree ci soxna Ayda doo kekku ca mbaaru ziyaar ba la leen dajale ca madinatu salaam teg leen yéen ñëpp mu ne ku ree doo kekku dane ku ree ci soxna Ayda doo kekku waaye yéen njabootu sëriñ Béthio gii les quatre vieux yii xaadi mboose Seydina Cuun mi daa di yow mi daa di ñaata nga dem <laughs> yow ñaata at mbaaxaan yow moom kenn limaalew la ngeen taxaw di jàmmaarloog seen soxna bàyyi yéen ñooñ duñ jàmmaarloog yéen ndax seeni wujj yaay lañ ñun ñooy jàmmaarloog yéen ñun taalibe yi ñooy defanteeg yéen ba mu neex ñoo moom suñu koppari joxuñu leen ko xanaa respect bi ba amee rek ngeen warmaal leen rek respecté leen rek ñu respecté leen ndax bu dul yoonu murit sax gisuma kuy fekk sa soxna baay mu toog nga di ko këll këllee këll ñi la ñee ak wax wax tuuri ca mbalit ak yooyu yéen a yàgg a lekk nag i mbalit yi yéen at mu ne la nagi mbali di lañ leen di jox te soxnaay daal leen koy jox moo koy jënd mbali dàq ko mu ñëw mooy jëf jëf ji dàq ko mu ñëw indi ko jox ko seen baay mu tànn jox leen yéen a ko yàgg a lekk yéen ñi yéen a ko yàgg a lekk madinatu bañ koy sanc da ngeen a daw waqit ne fii àll la bàyyi sëñ bi ak soxna yeeg taalibe yi fu sëñ bi dugg taalibe yi fekk leen fa tey ngeen taxaw da ngeen foog ne mën ngeen noo këf taalibe yi nooy bopp rek ngeen i këf ñi dawoon dem nga xam ba jëf ji ne ba nag 500000 lañ daw dem léegi ñoo nekk riir mbambu topp la un milliard doo ko dajale ndax ñi dawoon a ñëw ñi xamul jëfar sañ tubaa ñoo la topp xam nañ lépp 99 lañ ànd ak sëñ Béthio moo nu yar mayeenu jox nu ay kër nu dëkk bu wax jotee dañuy wax di ñaanal sëñ Muntaxa yàgg fi loolu te wér Mbàkke Bàlla bëgg nañ la sopp nañ la wóolu nañ la it tey togg nga toog ci sañ tubaa neex nanu lool te it sopp nañ la lool Mbàkke